asalaamaaleykum ñu leen di nuyu di leen ziar bax yeen ñi suivre ñep ci sen chaîne bi di sama xalat TV ñu leen nuyu di leen ziar di leen fatali yeen ak sen programme euh, plante de la semaine plante de la semaine nag comme ni ngeen ko xamé dañ ci dalal professeur Ousmane Diaye chaque semaine mu ñew ben euh, gantax ko am day sax ci rew bi euh, mu wax ñu yeen njariñ la ci walum wër gi yaram tay nak garab gi ñi waxtane du garab bu am day sax ay mbedd wala ci ay àll garab la boo xam ne moom yaa koy saxal moom temps muy def daal di indi euh, muy garabu garabu jaxute jaxute waaw bu ngeen déggee garabu jaxute kon nga nga xam ni fruit de la semaine wala légume de la semaine bokk mhm. dañuy ñëw ci doomu jaxute mhm. waaw kon nag vidéo bi moom ci garabu jaxute gi ci boppam moom ban njëriñ la am ci wàllum wér-gu-yaram lañu waxtaan professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw Pape ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu suñu mbokku internet yëpp nga ne ñu ngi suivre xam naa bala may tontu ci question bi rek Pape ma dafa am temps benn vidéo bu ma seetaan ci réseaux sociaux yi. Mhm. ma xam ne nag am na lu ma ci xaw a naqaru tuuti. Mhm. benn xale bu jigéen bu muuru. mu mhm. yaa ngi koy gis nga comme déet. Oh, mu ni mi def mi ngi def stage ci octobre bi. Euh, Fann. hôpital Fann. mais bi mu ñëwee ci bureau major bi daanaka da ngay dindi sa muuraay. finalement defe naa noonu lañ ko rajee. su bëggee bi mu ñëwee waaye. ci Facebook bi laa ko gis. loolu yaakaaroon naa nag ay Sénégal eggul foofu xale bu jigéen buy muuru def stage vraiment war nañ ko mën a jàppale surtout. loolu yéeme na waaw yéeme na. ba moom wax na wala waxul. waxagul mais xale bi daal def na ay vidéo wax nañ ah, xaar ba Masor bi wax loolu waaw moo tax ma ne bu fekkee am na daal euh, doy na waar trop. su ah, yaakaaroon ne Sénégal eggul foofu. non loolu foog moom hôpital man dem naa fa gis. waaw waaw ñu fay liggéey mm, personnel. Euh, yu bëri dala jàmm bi. waaw ñaar xaw ma ñett ñoom dañuy personnel. dañuy moom xam nga tamit dem na ba cité hôpital bi ñu fànn wax ko loolu bon je ne sais pas. donc. Euh, motif bi daal foog mu nekk moom. waaw waaw mën na nekk leneen rek. yaa ngi fàttaliku yaa ngi fàttaliku. Miss boobu génnoon fii am lu mu wax ci organisation Miss Sénégal. Mm, waaw waaw nangam nangam. waaw effectivement waaw bañ toppee enquête topp ko topp ko loolu yëpp après dara courage daal di xëddee moo tax fi ak masoor bi waxul daal. Mhm. moom nañ ko. waaw moo tax moo tax ma jël sama matuwaay sax moo tax ma ne bu fekkee loolu am na. fekkee loolu am na parce que man léegi moom. <laughs> léegi moom li may def mooy waaw réseaux ngi ci nekk rek. benn pàq du lay benn pàq du lay. waaw effectivement. da koy déglu rek. bu ko defee nag Sénégal bu fekkee am na. daal Sénégal dafa naa wërta toll foofu daal ci wàllu. Ah, vraiment vraiment vraiment war ñu bàyyi nit ki moom mooro euh, bi ci des Pape mooy benn yóbbante boo xam ne nouvelle bu neex la benn paa bu ma woo barki démb moo barkaati démb mhm. di wax ni AVC la amoon mhm. ñëw na Dakar faju un an ngi may dégg sax parce que dafa abonné ci canal bi da mhm. ci sama numéro mu ne ma professeur Ndiaye yaa ma faj parce que def naa un an Dakar faju wéruma léegi nag sa garab yi deux semaines laa ko jël AVC laa amoon man nee ma macha allah mu ne ma nag laa dinaa ko def audio eh, passé ko sama sërëxula yëpp ni leen ñu dégg leen jaay moom macha <laughs> allah ni samay olof leerul man ko noonu def ko ci olof rek ma samay olof leerul ah yàlla na yàlla barke wax na ma dëkk bi mu dëkk yëpp bi ak yu demee noonu mais pour wane ni rek mm, mm, mm. Euh, loolu day na sant yàlla ah, euh, day na sant yàlla euh, kon xam naa ni daal te loolu maa ngi koy confirmer parce que ñu bëri ñu lay remercier ci garab yoo leen jox mm-hmm. ma bu audio yi dégg naa ko. <laughs> xëy na nag comme émission bi laa ñi ñuy def émission bi laajul. laajul waaw effectivement ah, effectivement parce que voilà saabu du fóot boppam. Mm-hmm. loolu la waaye nag mu nekk man mun naa ko confirmer. Ah, ñu bëri ñoom jox ay garab. Mm-hmm. ñu am tan wala ñu wér. ah waaye loolu ne la garab yi daal alhamdulilah. am ñoo dañ lay laaj ndax. traitement mën naa koo yemale dañ koy jël moom jeex. <laughs> non Pape audio yi sax dafa dafa bari ba nga xamante ni. nit ñi sax dañ ma koy dañ ma koy wax mais man maa bëggul Euh, ay témoignage ak ay yu demee yooyu daal dafa xaw a. ñu si bëri dañuy bëgg nga publier ko. waaw ah, mais du ko jar xamalu tax. parce que boo xoolee. ñiy propagande bi ñëpp ci télé yi di. fay publicité. waaw loolu la ñuy def. waaw kay nga defandoo ko ak ñoom dam benn. mi ngi noonu mi ngi noonu li ci am solo mooy. yow nit ki wér rek man moom ay importance. te kooku wér maanaam moom bu gisee ku am AVC. dina ko jox sa numéro ne ko demal ci. nee na ma nee ma moom audio bi da ko def ci <laughs> neen na ko def ci saraxule pa sànni ko saraxulam yëpp. boobu nag moo gën a efficace <laughs> ah. man bis bu ne nit daf may contacter ci li may yëngut si liggéey. Mhm. ne ma diw léeg-léeg sax nit ki mën a ma diw day defe ne kooku dama koy xam personnellement. waaw ah. ko xam dama ko mos liggéey rek diw moom jox sa numéro dama am problème sàngam boole maa yow ne ma bu ma la contacter dina régler. Mhm. publicité boobu professeur. moo gën moo gën a neex te moo dàq publicité yi muy buus oreille. koo defaral mu gis mu wax keneen kooku wax keneen. bu yàggee ñu bari daanañ xam te doo dem def tentement doo dem publicité fay ci benn télé wala rajo. waaw jàpp ko foofu yow daal assurer résultat yi rek. résultat yi moom mi ngi am. voilà ñu delloo ci sant yàlla rek. sant mm-hmm. yàlla bu baax a baax macha allah. alhamdulilah waaw bu ko defee ñu ñëw ci garab bi nga doon sànq muy jaxute. jaxute waaw mu nekk euh, garab goo xamante ni tamit comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. Euh, bariwul ci. ci senegal maanaam. maanaam ci waxin li tax mooy bariwul mooy nekkul garab guy sax. sax rek noonu boobu noonu waaw kay li fa nga ko mën a amee rek mooy da nga dem koy bay tool yi ñu koy bayee peuple de légumes amee mhm. mais li ci njëkk a nit ki mooy buñ ci joxee ay njariñ tamit mhm. dinañ ci joxe ay njariñ mhm. mais dañuy mettre en garde nit ñi képp kuñ ci jox njariñ njariñ moo joxtu bee passé sax ñooy yem moo basante bi moo basante koy wuti ci xob yi boo demee ci tool gisal boroom tool bi ba pare. waaw bañ dem toolu jàmbur rek dem dina ngay xaw a. dëgg de waaw gisal boroom tool bi. Mm-hmm. ñaan ko xoob bi. may la waaw ah, dëgg la bañ ko sàcc. bañ ko sàcc. Mm-hmm. parce que euh, day indi beneen problème. Mm-hmm. bi ci des mooy li tax mu am solo foofu. mooy que nii am na ñoo xam dañuy traité garab yi dañ koy traité ak produit chimique. mën nañ ko traité nga ñëw fa. waxta ci dagg yu xaw nañ ko démb. waaw kay. traité mooy ñu pompe ko pour pour gunóor yi ak sax yi duñ lekk garab gi waaw waaw ñu bàyyi ci xel waaw kay produit chimique lañ koy produit chimique lañ koy pompe mhm. léegi ko pompe ba pare noonu nga ñëw fa dagg wala ñaari fan nga dagg kooku parce que normalement traitement bu wax nañ ne même bu dee garab bi sax war nga am deux semaines mhm. doo ko mën a lekk waaw ñuy bay mhm. buñ traité bu ñuy waaji wit waru ñoo traité donc yow it kon ñëwal ba laaj ko ba xam traité wu mun la gëj naa traité mun la waa gëj naa traité mu may la ci nga doog a dem yóbbu du am benn problème. guddal fan. <laughs> donc lii lu am solo. no sa nga c'est vrai nit ñi dañuy dem am yoo xam ne dañu koy rusu sax ñaan. Mhm. dañuy bàyyi bu borom tool bi dem ñu jaar fa dagg. Mhm. fekk nag moom wittoon na traité woon na bari kii démb la bari kaati démb nga jël ko mu indi la sax ay lor far. donc yooyu yëpp détail la mhm. moo tax man la faj dafa bëri ay sew sew yoo xam ne li nga wax ni nga ëppoon naa bañ a wax dafa dafa doy waar gis nga waaw noonu noonu mu mel noonu noonu lay mel la gis nga même charia ba ci biir charia nit ñi mhm. yenn saa day def erreur yoo xam ne mhm. ay sew sew la yu nekk ci biir yoo xam ne duñ ko décortiquer te day indi problème dëgg nag loolu tamit mën na di bàyyi xel. dëgg la bu ko defee nag Pape Diakhoute. garab la goo xamante ne dafa bëri ay njëriñ. tey nag dañuy ñëw ci xob yi peut-être ci garab yi maanaam. xobi amna vitamin C amna vitamin B amna potassium amna na calcium. Hmm. waaw donc garab la bo xamni bari na bari na bari na njëriñ. Mhm. moo tax pap li li ma sam papa dal wax rek lay wax. Mhm. li bax lepp ko top bu yagge yaay bon. <laughs> am na gëne <laughs> su musa na dem wuti xam-xam ba ñew mhm. indi ben tour yalla bu mag wan ko. day xor rek ni ma tegal fee. <laughs> am na gën a mais parce que effectivement nag après ci laay doon xam ci la may wax mu ni ma li maanaam li baax ni lépp kenn mënu ko utiliser day réer waa jàpp quoi sa papa yoon damaa dal <laughs> ay temps laa bëggoon yooyu di gës say affaire rek <laughs> waaw waaye damaa jékki-jékki daal xaw ma daa mel daam lu may yenn xaw ma jékki-jékki yooyu yëpp laa bàyyi xam lu may def léegi mm-hmm. sa fa jàmm pourtant pourtant yaa ngi ci sa papa loolu mu wax téere rek non non c'est vrai man kay xam <laughs> Euh, gis nga dafa dafa bëri soo xam ne. macha lu ñu ma ñaar dafa bëri sëriñ soo xam ne loolu moo leen tardé. Hmm. am baax na nga jël weer ay weer ñu ne yu baax na nga jël weer ay weer tur yu baax yu baax dañoo bari bu ko defee nag yu baax dañoo bari te hmm. garab gi tey loo dem dem tey rek romb naa garab goo xam ne sax xaw ma ko man hmm. donc voyez ah. xaw ma ko sax man maa ko doo ko gis donc pour wala ni garab yi dañoo baree baree baree ba nga xamante ni li li li baax ci garab yëpp mënoo ko utiliser yi yow yaay xool rek li nga mën a gis nga tey kii faj mënoo dem di hôpital rek nga jël garab yëpp naan exemple mënul nekk de waaw mënul nekk de te premier noonu noonu la mhm. demee mhm. léegi bu defee nag noonu noonu la demee mhm. léegi bu ko defee nag jaxute boobu paap dafa baax ci ñi nga xam ne dañu am anémie ñu manqué deret manqué deret da baax si ñoom xobu garabu jaxob bi garab yi waaw ci baax ci ñoom xam naa ci bu même bu ñëwaatee ci doom bi sax dina am leneen lañ ci joxe. mais luñ koy luñ koy kii luñ koy si am def. mooy euh, da nga koy jël rek def ko infusion. ah infusion. di ko naan par benn kaas baax na wala deux kaas maximum. Mm-hmm. ci journée bi. xob yi nga jël. Mm-hmm. raxas ba set. waaw tàngal ndox sotti mm-hmm. di di ko di ko naan ñaari weer rek doy na. d'accord loolu baax na ci ñi nga xamante ne dañuy amee baax na ci ñi nga xamante ne dañoo amee tension. tension buy yéeg. tension bu yéeg. waaw tension artérielle. Mhm. ba tension de waxoon nañ fi ñaar façon tension moo am. waaw waaw yi ñu xool tension sax ëpp na yooyu mais ñaar lañ waxoon mooy la moo am. Mhm. mooy tension hypotension. mooy bi mhm. wàcc. ak hypertension mooy tension bi yéeg. léegi nag fii nag bi ñu leen mooy ki amee tension buy yéeg buy wàcc moom bu mu ko jël. mais ki amee tension buy yéeg. muy moom bu mënee am xob yi baax Mm, tension bi yéeg bi yéeg da koy wàccee koy wàccee loolu lay am da koy wàccee mm. léegi dinañ ñëwaat ci ñi nga xamante ni dañoo am problème jafe-jafe di am doom mm-hmm. nga xam ne dañoo ne di ñuy wax stérilité mm-hmm. maanaam am doom daal da leen jafe mm-hmm. muy ci góor ki muy ci jigéen ki ci jox ñaari solution benn solution moom dañ ñëw ba ci bu ñëwaatee feneen lañ koy jox ci doom bi mais bu dee ci xob bi moom di ko jël baax na mën koo def sax sunguf bu la neexee

yaakaar naa gars yi dañu ko xam waxtaan semaine yi passé rek moom la ñu doon waxtaan. waaw Bante waaw. waaw waaw dañu ko xam de parce que def nañ ci ay waxtaan. donc bu fekkee kooku dafa am problème mu stérilité moo xam man yu wala yu demee noonu. su koy jël moom dina dem ba dina baax si moom. ñett xob yooyu lay jaxas. ñax waaw bu dee boobu noonu bu dee bu dee impuissance sexuelle ci wàllum góor. ci wàllum góor. ñett yooyu ñett yooyu lay bu dee jigéen moom jarul mu jël yooyu na jël. xobu jaxatu bi xobu bi kese kese di ko jël. Ah, loolu leer mm-hmm. bu fekkee euh, pression artérielle bi ñu wax mooy tension bi tamit. Mm-hmm. da jël xob bi kese di ko di ko di ko utiliser. Ah. su fekkee nag koo xam dafa am saan la saan. Mm-hmm. moom reen bi lay jël. Mm, reenu reenu reenu jaxute ah. surtout bu dee xale. lu wut ci lu yam baxal ko moom moom doo ko invité man ko baxal. nga koy ko di ko jox mi naan kaasu ataaya. mel ni suba ak ngoon. loolu pour saan pour baax na ci ñi nga xamante ni dañuy am. Eh, saan muy mhm. muy muy mag mhm. te surtout saanu lay gën la gën a taxawee quoi mhm. ñi nga xam ne ñu bëgg perte de pois aussi waaw ñu bëgg a jeex jeex jeex aussi ko sunguf xobu xob bi baax na si maanaam nga jël xob bi def ko infusion di ko naan nga xam ne eh, day jeex maanaam day rey graisse bi moom booy naan xobi infusion problème yu bari la la mën a réglé loolu ak loolu quoi waaw benn xeer ay picc yu bari waaw non noonu noonu lay demee garab bi noonu lay demee rek macha allah danay réglé gis nga pap faj boo ko xamee dëgg-dëgg soo fajee nit benn jàngoro. Mhm. fajal nga ko yeneen fukki jàngoro wala la ko ëpp. man ki ma njëkk a faj ci jabet. Mhm. Hmm? Mhm. dafa amoon benn gu defe naa góom boo xam ne fii ci baaraam bi. xam ne nee woon na ma pommade bi chaque mois. daf ko jënd à vingt mille francs. salaire ko ci génn da ko ci def. mais bi ma ko fajee jabet la loolu dañaale. mu wéraale. mu wéraale. ah góomu jabet yi ñuy wax. xam naa waaw mais mais moom jàpp na woon ne sax ni góomu gi jabet la mais. waaw dañu naan ñi jabet bu ñu daggee du pour mu fermé wu dee jafe waaw dama koy dégg loolu mi ngi noonu donc ci law wéral c'est-à-dire mooy garabu moo riche mhm. c'est-à-dire nit dinañu ni fajal ma hémorroïde wala tension wala daal nga fajal ko fekk fajalaal nga ko yeneen yoo xam waaw waaw xamoo ko yi demee noonu mhm, donc bu refee nag bu fekkee nag xam nga garab ci ki xam garab la waaw xam garab bi xam dosage xam dosage yi ok loolu laa loolu laa mhm. donc bu refee perte de pois boobu da ci da ciy baax muy fertilité boobu ñi nga xamante ni tamit bon euh, maanaam euh, xam nga waxoon nañ ne ki nga xam ne mënut am doom. Mhm. mais dafa am lu ñuy wax fertilité. fertilité mhm. mooy ki nga xam ne am na mën na am doom. waaw mais soo amee doom bu lay amaat mën na yàgg. Mhm. maanaam euh, mu xamul daal mu. koy waxee daal mooy ki nga xam ni ndoxam dafa oyof. ñaare loolu la ko gars yi waaw ci jigéen sax ah, ki nga xam ne tey mooy jigéen taxaw rek waaw jigéen ju na am doom mais daa taxaw waaw kay mën na am doom mais daa taxaw exemple xam nga koku bu buy jël xobu jaxute ki yooyu jaxoto yooyu. Mhm. day dem ba mo mën na. day dindi loolu day dindi loolu sa di dire mën na dem bay am dom lu bari daal. Mhm. am ki taxaw am ñu ñoo xam ne bu ñu amee dañu amat day yàgg. day jaw day jay 5 ans ay six ans. waaw kay waaw léegi bu fekke mom loolu mi ngi koy jël. Mhm. mu yalla mën ko dimbali ba léegi nag loolu day normal nga xamante ni. comme yenn jigeen ñi ni ñuy juree rek. lay juré 2 ans 3 ans voilà. mu am doom donc loolu loolu moom aussi. dëgg jigéen nag léegi sañ suba dañuy bañ lool dañuy bañ. <laughs> dañuy dañuy bari ñooy créé <laughs> ñoo koy créé <laughs> léegi ñi nga xam dañu am problème mu rein. Mhm. muy problème rénal. Mhm. aussi bon ñu ngi ciy gëstu. peut-être que amaguñ ci affirmation yu leer leer. Mhm. mais aussi xabu jaxote yi moom baax na baax na. baax na waaw mën nañu ñoom. même bu ko fajul dina ko soulager daal dina ko ah, rein rein. waaw ren waxtaanoon nañ sax waaw waxtaanoon nañ donc léegi moom xaw bi jaxatu yooyu baax na ci mën na koy man na koy utiliser mhm. da ci da ci da ciy baax donc mën na dem ba soit soulager ko mhm. wala mu fajal ko donc bu defee gis nga xool kon jaxute gis nga xob yi bëri na bëri na njëriñ bëri na njëriñ bëri <laughs> na am na ñoo xamante ne xamuñu woon loolu yëpp dañuy yaakaar xam man mi xamee woon nii amee njëriñ de voilà donc gis nga xaw ko woon cest à boo jël moom am na am na lu a lu bari sax benn mhm. plante boo jël mhm. soit li may faral di wax rek nit ki xam ak ñàkk xam nit dina feebar ba génn àddina mhm. yàlla ma yàlla baal ci wax bi nit feebar ba sonn loolu nit feebar ñàkk xaalis lu bari fekk xëy na la koy faj ñu ci biir këram bien sûr waaw noonu lay demee sax ah man nett ma bañ mm. a guddal bi ma nettali si lu sama papa sama mos a nettali waaw benn moom tam nañu ko wax nettali woon xista mën naa même bu fekkee amul dëggantaan tam leçon la rek pour dafa am benn benn femme dafa feebaroon feebar ay ati ati ati at mun léegi mu am un jour léegi am kenn ku dem ci eh, géttu nag bi guddi demee ci géttu nag bi ku dégg ñaari nag ci di waxtaan. Mhm. li ñuy wax mu koy dégg. Mhm. benn nag bi daan na ko soxna si feebar si kër bi feebar bi sonal na beneen nag bi daan na ko pourtant de su toggoon laax mhm. jox ko xaj bi xaj bi lekk te rek mu wér mu ne ko ndaxte dafa musoon togg laax di ko lekk bi koy togg xaj bi nekk ci wetam di ko xool mu togg ko ba yàq ko ba pare lekk ko ba mu jeex te mu tëmbalu ci xaj bi dara tegal ko moom mu ne ko loolu bi mu ko defee ci la ko feebar bi dal bu jox bu toggoon jox ko xaj bi xaj bi lekk ko mu wér kooku ci suba sa wax ko. Mhm. bu ñu ko waxee mu def noonu bi mu ko defee wér def la waaw moo tax nga li lay li lay li li nga wax ni li lay mën na nekk ci nii. sa wér xam naa da ngay bañ da bañ bi gudd waaye dina gudd tey tey dinaa na tey moom vidéo bi xam naa bàyyi boo sax ñu bañ a def beneen vidéo bi waaye bii moom dina gudd léegi moom dinaa la nette lu mel lu mel nii. <laughs> naa la ci nett li ñaari xes na. Mhm. benn bi mooy comme ni nga wax ne dafa am koo xamante ni mhm. eh, doomam dafa feebar. léegi ñu jëkk di ko yóbbu ci beneen paax. waaw pour mu ñaanal ko. waaw exemple ci waxin. te mhm. bi ne ba ci digg àll bi. Mhm. gis benn garab ñu toog ko di nopp noppalu. Mhm. léegi nag eggaguñ ci kër sëriñ ba. pour mu defal leen ñaan. waaw léegi ci noonu picc yi sab benn picc ne xoolal kii rek ñu ngi ko jël. di koy yóbbu pour mu ñaanali ko. te xamuñu ne bu ko bidoonoon fàllax ak fàllax ak mu wóor kooku dégg loolu te bu fekk moom dégg li picc bi wax li picc bi wax xam nga am na xam yàlla may na leen waaw waaw si lu lu rabu àll yi wax dañ koy xam mhm. mu ne nañ kee nañ wëlbatiku lu tax ñu kon lan lañ wëlbatiku ñu egg wëlbatiku mhm. mu egg bindal ko loolu mu wér ko fan la naa si mu wér loolu beneen bi Pape histoire bu am solo laa lay nettali ci maam Cheikh Ibrahima Fall moo xam ne mhm. benn waay moom ko nettali daf ma daf ma daf ma daf ma daf nee na maam Cheikh Ibra dafa am benn dëkk bu mu daan gañe chaque at. waaw maam gane gane si. Mhm. day ñëw ci biir dëkk bi gane fi mais bu ñëwee balaa ñëwaat déwén. Mhm. chaque année quoi chaque année. Mhm. léegi bi mu ñëwee eh, benn waa fekk ñu sàcc nagam def naa nag xaw fas daal la ma wax. nag xamatuma fas mais benn la ci. léegi léegi waa ji de hésité mais ah négal ma ko maam Cheikh Ibra. wala ma bañ koo wax ci nag ñu sàcc. xam nga maam Cheikh Ibrahima ah dafa toll ay jamono nit ñi jàppe wuñ ko woon. Ah, waaw wér carrément waaw mm-hmm. muy xalaat loolu daal ah, rek. Mm-hmm. daal ni ko maam Cheikh ne daam sàcc yi fi ñëwoon fan yii sàcc sama nag. Mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima ne naanal lay dóor. bu defoon bu naanal lay dóor. kii ya. <laughs> di li ñuy wax te ci dafa gaañ <laughs> rek man maa ngi koy wax ci xel la ko wah, quoi waaw ndeysaan ngi koy wax dañoo sàcc sama xat sama nag maa mën naa lay duur sàcc lu mu jot ak lay duur daal toog bàyyi noonu ñu demaat ba ca déwén sa maam Cheikh Ibra ñëwaat fa waa ji waxaat ko même question bi ne ko maam Cheikh Ibra waxoon naa la dañoo sàcc sama nag daw, de mu ne ko da ngaa naanul lay duur xam ah, nga dina dina jàpp ci yàlla dem naani lay duur ni ko da naanu lay duur waa ji toog ba ci yàgg daal naa ko ñaari yoon léegi ne daal ma naan lay duur daal di lay duur bi mu naanee lay duur ci guddi biir bi yëngatu xam nga hmm. lay duur day daw biir mu tëddee ba trois heures du matin biir bi yëngatu mu dem ci ginnaaw àll bi. Mhm. xam mag ñi ci ginnaaw àll bi dañ daan demee kër. waaw ah, dañ mhm. daan demee toilette. ginnaaw kër sax lañ ko tudd. waaw ginnaaw kër mu dem fa di dem ginnaaw kër am ñu fa romb ci dëkk ba di dem beneen dëkk heure yooyu di di kii. Mhm. mais heure yooyu lañ fa romb quoi daal ne ah dëkk bi de lañ sàccee woon nagu waaj mi ngi ci dëkk nangam ak nangam fa lañ ko jaayee fekk moom mu ngi doon. tuur mi ngi leen di dégg mi ngi leen di dégg ndax mi ngi doon. dem ah. toilette waaw ah. yaa ngi mu ne ah, xëy dem ca dëkk ba fa ñooñu wax hmm, gis nagam récupéré ko indi ci oh, déwén sa mam Cheikh Ibra Fall ñëwaat fa oh. mu ne ko mam Cheikh Ibra nagé ya feñ na mu ne ko da nga naan lay dur moom ba légui mom ben phrase la koy te phrase bi lay jël di ko di ko waxee nu dëppoog situation ma sha allah bu dëkk ba len ko xam naan lay dur ci dess waa ji ñëw mun ko xam naa xanaa naanoo lay dóor mais mun ko da nga naan lay dóor wan la ni macha allah dafa dafa affaire yi dafa man daal doo comprendre gis nga. daal laaxatu sori wala daal laaxatu mais bañ a négliger dara rek. waa kay loolu loolu négliger négligence boobu gis nga. bañ a négliger dara naan lay dur boobu mu ko wax gis nga moom. lay lay dur gis lay dur moom gisul lay dur. jege na ko. mu ngi noonu mooy solution mooy solution bi. Ah, gis nga ko da ngaa naanul lay dur naana lay dur waa ji bi mu bañee ba mu ñëwee ca Duba ni ko feeñagul ba léegi mu ko xanaa da naanul lay dur mhm. ba mu naanee lay dur la feeñ bu ñëwaat mu ne ko xanaa da naan lay dur. <laughs> ma ko waaw ah waaw loolu si war a de. <laughs> gis nga waaw pour wala ni gis nga wala ni ñun Afrique dañoo am lu riche ko exploité dañ ko dañ ko dañ ko négligé. ndeysaan dañoo am lu lu lu dëgg la de dëgg la am lu doy loo xamante ni yàlla moo ñu ko yàlla moo ñu ko defal. dëgg la dëgg ñun li ñu yàlla defal lañ fi bàyyi dem ci li li nit ñi defal. dëgg bien waaw dëkk boo xamante ni lu mel ni maam Cheikh Rafal El Hadj Malick Sëñ Touba. dëgg la yeneen ak yeneen. donc donc noonu daal mënumaa xam daal moom. dëgg la de mi ngi noon daal Pape. su ko defee xob yooyu. Mhm. Euh, mu baax na si si jabet aussi ñi am jabet. Mhm. Ah, baax na si. muy xob yi jaxute boobu. xobu jaxute jaxute. Mhm. waaw mais ñi nga xam ne dañu dafa dañoo am ballonnement nag. dam dañ leen koy moytu loo nga am. seen biir yi am ngelaw lu bari. day am ngelaw biir yi rëy daal. waaw moom la ñuy la ñuy moytu quoi dañ koy moytu moom. Hmm. waaw moom baaxul ci ballonnement baaxul ci ballonnement. donc bu rafet ñun comme ballonnement daal ngay éviter yooyu. éviter loolu sànq ci commencement bi dégg naa am ay vitamines yoo mm-hmm. yooyu moom ku bëgg jël ko am vitamines yooyu moom même chose da nga koy infuser wala. waaw defee nga mën a am vitamines yooyu. vitamines toujours boo baxalee rek vitamine D na lu ci bëri. Ah, su dee reen daal moom mën nga baxal mais bu dee xob moom infusion. moom moo moo gën. ah d'accord wala mhm. noonu rek. am na garab yoo xam ne xëy na boo xoojee li ci nekk du gaaw a génn. gaaw a génn ah, waaw moo tax boo koy tàngal rek ndox mi tàngaay boobu mooy indi. mooy gaaw a génn boo xëccee principe actif yi. principe actif yi ngay wax kay. léegi principe actif yooyu tamit boo ko toggee day dee moo tax doo faju loolu mooy problème. <laughs> waaw loolu mooy problème te léegi bu dee ci reen mhm. bu dee ci reen am na reen yoo xam ne bu dee reen la wala reenu suuf mhm. tamit boo ko boo ko xooje noonu du gaaw a génn du gaaw a génn soo ko tàngalee du gaaw a génn da nga ko principe actif soo génn ko mën a hmm. am bu ci nekk daal nga xam principe actif nan lay génne mhm. mooy mooy foofu la mbir mi moom foofu la mbir mi ah, ne xob yi ci ëpp moo leen di génn kii euh, di génne reen yi ci ëpp baxal moo leen baxal di génne ah, loolu leer na am na reen yoo xam tamit da nga koy xooj waaw am na benn benn benn yoo xam ne am na solaas da ngay xooj noonu rek bàyyi. moo mhm. ko moom dina dina wàcc waaw. Mhm. donc defee nag sew sew yooyu. da ci mhm. da day baax. ci ci nit ñi di ko xam waaw. d' accord da nga ko defee na ko ah, waaw waaw waaw acca bu ko defee nag kon jaxute gis nga paap. Euh, noonu mu mel noonu. noonu la baax ci impuissance sexuelle bi. defe naa impuissance sexuelle bi sax naa benn livre boo xam ne tamit mos nañ ko cee wax ni baax na ci. ndax man maa ngi fàttewu sax am na ay temps yoo néew yóbbante woon naa ko fii Mboro. ñu mhm. xaw bi jaxatu yooyu boobu. Ah, impuissance sexuelle foofu bari li wax ni na ëpp na dix ans. Mhm. defe naa euh, baax na ci. d'accord baax na ci impuissance sexuelle ñi nga xam ni dañuy am. xam ah, avantage mooy li ci gën a nekk avantage mooy. soo defee infusion xob yi. maanaam hmm. soit mu faj la soit mu nekk sa ndox nga naan. sa ndox nga naan waaw kay. benn effet voilà ci kaw nag ñu respecté li nga wax. Hmm. bañ a dem di jëli yi nga xam ni dafa. dañ ko dañ ko pomp garab guñ pomp nga dem jël ko dafa daal bàyyi voilà mën na bàyyi xel quoi loolu yaakaar naa leer na kon professeur xam naa ñu ngi lay euh, remercier mm-hmm. yow macha allah am na am na solo jërëjëf bi si topp nag dañuy ñëw moom ci après ci doomu jaxute naa mhm. boobu moom du gudd dañu gudd rek incha allah mhm. la muy jëriñ am incha allah incha allah mhm. ñu ngi lay nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci vidéo bi di leen baaluwaat àq rek ci kàddu yi bu fekkente ni xëy na xaw na dëng lu ci jub rek nga xam ne yàlla la lu ci dëng nga xam ne ñun la rek doomu aadama moo matul ni ñu ko waxee lu baax rek lañ ci jublu nag waaw bu ko defee ni di leen jéglu wa di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullah.